bi muy nekk procureur ba tey mu nekk ci boppu OFNAC euh, ñu teg ci conc je peux dire entre guillemets euh, ndax dina dina dina leeri ak rapport cour des comptes yi nga xamante ne dooleeku na ci. ah man daal xam naa ne. Mhm. moom seen liggéey daal. oui Bassirou nee na moom moo wax de. waaw nee na mboolem dossier yi ñu ko transmettroon bi mu nekkee procureur de la république. oui traité ko loolu wax dem. léegi man li ma koy laaj mooy bu fekkee traité nañ ko est-ce que sénégalais yi gis nañu le résultat wala dafa am yu ñuy traité di ko nëbb ak yu ñuy traité di ko siiwal ah. wala dañoo ah. seetal ñi ñu épinglé. damaa xam ne dañ fi lim lépp ci ay dossier yi ñu ko jox mu ne traité nañ ko mais en résultat bi en résultat bi pourquoi. pourquoi mu am manque de transparence même dans le traitement de ces dossiers là lan moo tax mënuñu wax ak sénégalais yi. Mhm. et beneen affaire gis nga comment se ko il que ñu koy rattaché à la présidence de la république. <laughs> jërëjëf ndax yow nga et toutes les les tous les services à à à fort budget. <laughs> en, <laughs> ah, en sus de 80 milliards ou plus de 80 milliards de budget de la présidence. <laughs> donc le contrôle de mooy mooy nit dañu kaa téye mais bu dee yaa yor lépp lii lay jur. voilà chèque chèque chèque expresso sama waa ji ma ne. voilà <laughs> sàq mi sama lañ ci rek voilà jëm jëmi de waaye jërëjëf chèque. ay lii. lan moo tax OFNAC. Mhm. ak mission bu rëy bi mu yor yépp lan mooy pertinence suñu koy rattaché à la présidence de la république lan moo tax mun ñu ko détaché jox ko toute son autonomie mu mën a poursuivre ay nit di leen attelu directement <laughs> et non pas di bind rapport <laughs> di ko jox un procureur procureur bi jox ministre bi ministre bi jox premier ministre premier ministre jox président de la république mu ne ci niit ak concom <laughs> mais mais mais autonomie boobu ndax mën na am bu fekkee ni justice bi amul séparation des pouvoirs oh. ah gis nga circuit gis nga circuit. oh na mu déglu la foofu la bii Basiru l'a dit de façon subtile. ah ah démb ci la nekkoon. dama bi nga ne nabu ko. wax ko nga ne. xam nga bu déedéet xaar xaar xaar. man moo ma taneel ki ma yóbbu ne ma demal laaj. ma ko ñaan may ma may ma. na ko ko laajaat ko sëñ Basiru. kàddu yi mu wax ndax mënuñu ko waaw. mu ndax dina mën a euh, lijjanti dossier yi fi jot a jàll. très de compte doole doole. Seynabou mi ñu fi wutu. waaw ak i enquêteurs am. Ah. Ah. dañuy lëñ bët. Mm. bindum rapport. Mm. Mm. jox procureur. waaw procureur pour kilifa fu mu bokk. ministre de la justice waaw de la justice pour kilifa. président la Amadou Ba Amadou Ba pour kilifa. Ah, Macky Sall na ci nit ab coono coono. <laughs> Barke Sëñ Bamba. dëgg baa ngi merci jërëjëf Ndiaye. waaw léegi. Eh, léegi. yow bu fekkente ne da ngay créer kuréel. yaay café ngi. c'est comme c'est comme c'est comme la cour des comptes hein <laughs> c'est comme la cour des comptes yow da ngay créer ay kuréel yoo xam ne joxoo leen autonomie pour ñu poursuivre directement ay nit di leen attelu sans pour autant jaar ci circuit bu gudd boobu yépp <laughs> waaw mais jaar ci circuit boobu ndax li nga mën a wax ñu détaché lii di euh, ku ci mel ni OFNAC ak yeneen ak yeneen mais est-ce que dina mën a am bu fekkee ne justice bi amagul amagul euh, séparation euh, des pouvoirs. ñoo xam nga loolu moom leneen la. Mhm. gis nga la justice. la justice. Mm-hmm. elle est indépendante. ñi koy incarner ñoo war a jël cette indépendance. ci fulla ak fayda. xaw ma ndax dégg nga li moo xam ne. maanaam bu fekkee yow juge bi wala yow magistrat bi war a incarner la justice nangu woo jël sa indépendance mais ki la ki la féete kaw day takk buum sa baat fu ko neex la lay dugal di la def loo ngay def. mais y' yaa y' a alors dañ ko théoriser. Gossas y' a un petit bemol oui y' a petit bémol mooy que kan moo déggati Souleymane Teliko. dégg waay waay waay waay yow. seet ma fan ma ne. dañ ko jël déporté ko affecté de l' autre côté donc possibilité bi nga doon am pour wax ak nit ñi sax dañ koy rendre eh, tuuti quoi. Mm-hmm. gis nga gis nga gis nga parquet xam nga bu demee ba un ministre. indépendance de la justice. di xëccoo ak un magistrat ba koy affecté lu fu sori ba waa ji mu jaral ko muy dugal ay recours en annulation fu mu jëm. man damaa gisul la pertinence de créer benn structure boo xamante ne tey. moom day bind rek ay recommandation rek la lay jox. recommandation yoo xamante ne yow tu n'es pas tu n'es pas obligé de les suivre loolu mooy le problème xoolal rapport Cour des comptes bi li coow li rëy rëy rëy yëpp ay recommandation képp la def ñii la cour recommande ñu ubbi information judiciaire ñii la cour propose ñii la cour nangam na loolu rek ngay dégg. mais résultat kenn craindre leen. résultat bi. kenn craindre moo tax Bassirou fi mu nekk nii moom na ko leer ne gis nga moom mii tey bu bindee bu bindee maanaam nit ñi ñoo changé rek mais circuit bi ba léegi ma nga fa moom mii tey bu enquêté bu bind procureur de la république lay jox te ko fa remplacé moom mii moom lay jox kee jox kee kee jox kee kee jox kee waaj na nii. naka la ñuy régler dossier yi dans ces conditions. Mm-hmm. lan moo tax cour des euh, comptes. la si pays vraiment doole bi ñu jox CREI yi CREI yi nga xam ne gis ngeen ni mu fi ni mu fi patam patamee Khalifa Sall rakin cat ñu laax ko jant bi mais lan moo tax ñu jox doole bu ñuy ëpp sinon bu ko ëpp Cour des comptes ak mm-hmm. nag nga xam ne day poursuivre àttelu la. mais yi nag boobu ba tey ñaari dossiers yooyu rek moo fi kii de. Ah, loolu lay coow li. mooy coow coow ba CREI CREI benn benn benn Khalifa Sall kan la woon. Khalifa Sall c'est la justice sénégalaise normale c'est pas. Karim Wade kese Karim Wade kese waaw Khalifa Sall moom justice la woon. ba cour suprême. ba cour suprême. man dama et puis bu ñuy traité ay dossiers. xam nga kii ñëw off nag déposer plainte. oui bu fekkee dafa am traitement mu am ci dossier war na mën a am l'information. mais Bassirou moo ñu xamal démb que ne dossier yi ñu ko jox yépp traité na ko mais ana résultat bi. loolu kay lañ koy laajaat ñun. moom moom bu ko traité rek dafa waroon woote. waaw kay woote ñu jàpp leen ñooñu. waaw kay déglu leen. il faut que parfois loolu amul de. parfois dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy mbubboo droit de réserve. Mhm. pour bañ a communiquer. mais parfois il est de communiquer. Ah, waxal ak Sénégalais yi ne leen diw mii porté nañ ko plainte def na fraude def na corruption def na enrichissement illicite sàcc na xaalisu askan bi déclenché nañu la machine judiciaire voici le résultat. Sénégalais yi apprécié mais ñaata rapport lañ siy bind. Mm-hmm. Sénégal moom ñoo dàq bind bu dee këyit rek sous région bi ñoom am nañ fulla ba dañuy ñëw. jël ko fekk luñ bind ba pare ba mu normal. ñoom ñu jël ko yóbbu appliqué ko seen dëkk. ñun ñu ne fi di yàqaat xaalis di bindaat encore séminaire Sénégal ñoo fi dàq séminaire dàq fee colloque. bind rek. mais appliqué moom. Mm. dañu mës am problème boobu. dañoo mës am problème boobu et il faut que nag mu changer. oui mu changer. fekk la système bi ngi existé ba léegi dama ne la Bassirou mii ñëwam off nag. Mhm. daanaka moom Seynabou Ndiaye Diakhaté mu fa nekk ba léegi lay doon rek. déet bu Ndiaye Diakhaté kay benn la moo tax moo tey ne kat ca lañ doon am. day bind joxe. lu mën a def lu dul lool. Seynabou dana am bind di ko jox moom mi moom li mu bindee day joxe ki jox kii ki jox kii ki jox ki waa ji de di déet déet ëpp naa def doy na waar doy na bàyyi bàyyi leen ñu dem ci beneen euh, ponk bi balaa euh, ñuy dem ci euh, ci ci revue bi waaw léegi ñu dem ci ci revue bi